ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi leen di xamal ni Touba suñu teewaay fii mooy fexe ba lépp jaar ci yoon ba nit ñi fiy ñëw muy ay millions de personnes ñu dëkk Sénégal ak ñu fi dëkkul kenn ku nekk ci ñoom gis sa bopp ci service bi nan la nit ñi gise seen bopp ci service bi mooy ñu saytu jàmm ak salaam comme ndawi jàmm lañu te sàmmkati jàmm lañu ba nit ku nekk sa taxawaay ñoŋ sa alal ñoŋ loolu moo waral ñoŋ mooy kenn bañ a laal sa alal wala mu bañ a laal la ko wër loolu moo fi waral suñu taxawaay. interpellation yi moom comme ni ma leen ko expliquer tout de suite wax naa leen nombre bi nga xam ni moom la ñu interpellé muy deux cent soixante seize personnes yi ñu interpellé ñi ci ak càcc lañ leen jàpp. ñii ci tux ñii ci drogue ñii ci yor ay billet yu baaxul di ko circuler ci dëkk bi ñii ci naan sàngara ñii eh, ci eh, bañ a eh, yor permis de conduire di dawal ñeneen ñi nag seeni interpellation mi ngi concerné loo xam ni mbiri permis lay doon wala ay pièces yu manqué wala pièces yu dépassé wala ñàkki kayit ñu ngi leen di xamal tamit ne accident yi mu ngi bëgg a bari na gaa yi tegg seen tànk daw ndànk jiital xel xalaat soog a indi seen bakken parce que déjà am nañu actuellement fanweeri accident ak benn yoo xam ne ñaar fukki yeeg ñaar ay oto la yu mbëkkante juróom-ñetti nit am nañ ci ay gaañu gaañu am na koo xam ne yàlla dogal na bakkenam dem na